allah akbar borom alal joo dégg nag ci biir ndakaaru fii jamono bi ñuy nekkee ci daara ji taal na otoom ñëw ba ci biir kër gi dugg ñu ñaanal ko mu génn demaat allah ñëw xaaju guddi la ñuy moom faal maa ne la képp ku bëgg a samp ci biir askanu Cheikh Fall ngay ñëw wala nga ñëw ci askanu njariñu samp mënut a loolu la yàlla dogal allah akbar moo tax képp koo xam ne dangaa bëgg a samp ci at am na ci samp yoo xam ne cangat lay doon tam soo amee càngat lay doon càngat lay doon mhm. càngat gi bañ nañ ba sax dafa am ñaar da ca am càngat goo xam dañoo wax ne ku yées fukki at kenn du ko defal ndax ah. wóoluwuñ ko ndax dañoo wax ne maturité mu ngi tàmbalee ci kaw ñeent fukki sax buy yónni ab yónni faaw day am ñeent fukki at mu soog ko yónni mhm. xutbaaniya sax bala ko nit ko am faaw day ñeent fukki at ñu soog ko jox xit xutbaaniya mhm. dafa am samp goo xam ne ku aw ku yées ñeent fukki at deesu ko defal allah ndax saa boo ko sangoowee mbooloo danañ la wuyu da nga bëri xéewal da nga bëri wërsëg da nga yëkkatiku loo mën a def faw yàlla yëkkati loola te kenn du ci mën dara. say morom yaa ci raw daal. wallaahi wa rabbul kaaba faw faw laa wax faw te kenn du mën ci yow lu toll ne tarfatalaay. seex bi dafa daw ne samp am na yoo xam ne càngat la. mais tey ñi nekk bitim réew tey. bëgg samp. te jotewuñ càngat. ok waaw bu dee samp nag dafa am loo xam ne ci turu yàlla lañ koy liggéey. Mhm. loolu nag moom turu yàlla boo góorgóorloo bañ samp la ci. maanaam ay niveau la daal. ok dafa am lu ñuy samp samp tur yàlla nag nga baal ma seen bi léeg-léeg ma damay boroxal de wér na de mënul ñàkk samp ci tur yàlla nag loolu ci xudratul ilahiyya lañ koy defee mm-hmm. tur yàlla bu ñu la ci sampee dal maanaam ba keroog ngay faatu kenn ku yàlla bind mënu laa daaneel mm-hmm. te loola ci mm-hmm. kurus lañ koy liggéeyee kurus danaa ci joxe ay mandarga waaw comme léegi ñi nga xam ne dañuy déglu rek jël yi fi jàmm dafa yomb uh-huh. waaye képp koo bëgg a samp ci kurus laa wax waaw foo gën a sori ci la ne li ñuy soxlaa xam mooy sa tur ak sa turu ndey bu ñu ko jëlee. ba mhm. xisaab ko boole koog tur yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci benn jataay. Mhm. buñ ko liyee tey nga xam ne samedi la ci guddi. wallahi ba samedi ba dellusi barke alquranul karim yi foo mën a ne ci àdduna danañ la dégg teraanga. te lépp luy lijjanti ci àdduna moo xam këyit la moo xam lu dox ci wàllu yëngu la ci wàllu wërsëg nu mu mën a doon sunu borom dañ la ko jàpp na la. loolu par force la kenn mun ci dara. Mhm. ndax yàlla la maanaam ci yàlla ngay jaare nampatal doomu aadama bi ngir yàlla jëfandikoo coobareem loolu mu ne faalu li ma yurid man lu rek laaj yàlla day jëfandikoo coobare ci kooka te du ko sañ a bañ te àdduna sépp dañ koy nangul ndax sampub yàlla lay doon wërsëgam day yokk day amee kaaraange day amu ubbeeku te lu mu bëgg suñu borom da ko koy jàpp ndax mhm. am na ci samp yoo xam ne nag ci bërëb lañ koy def ci bërëb lañ koy def mooy samp bi nga xam ne nit ki place la yor mhm. wala mu yor magasin wala mu yor parking mhm. wala bërëb boo xam ne visite la da bëgg ay nit di fa ñëw loolu woote mbooloo la loolu itam danañ koy liggéey ci xaru benn melo xaru benn melo xaru benn melo. allah akbar nga xam ne dañ dañ koy liggéey pare def riyaada bi bu noppee def dog yi ñu ciy xaru benn melo bi. Mhm. dana yoo xam ne mooy bàyyikoo ci biir xar mi loolu nag du ma ko leeral dama koy. waaw la koy codé. waaw yiy bàyyikoo biir xar mi am na yu ñuy bind ci alquran boole kook sunguf boo ko solee ci loolu bërëb bu mu ne. Mhm. wallahi wa rabbul kaaba dana mel ni marché bu yàqu. Mm, na mel ni marché bi yàqu vraiment euh, gis naa euh, sëriñ bu nekk gis naa révélation bu nekk mais tey li nga joxe vraiment da ko génne ci xam-xam da nga ko teg ci alquran da nga ko teg ci li nga xam ne moo di macha allah la dara waaye seen bi euh, samp ba léegi rek la ñàkk hmm. waaye itam dañuy dem ci li nga xam ne moo di bayre hmm. parce que boo sampoo ba pare te amoo bayre aussi itam hmm. wàllum bayre ñu bëri bëgg nañ bayre ñu bëri dañ naan def nañ bayre mais bayre yombul euh, wàllum bayre waaw moom moom ñaari bayre moom ba ñett am na lu ñuy wax bayre njaay mooy ki nga xam ne ci njarte la yëngu maanaam ci commerce njaay ak jënd am bayre boo xam ne bayre bi siiwoo ko tax a bëgg rek nit ñi xam la waaw ngay dem rek te waaw rek waaw am bayre boo xam ne nag ñi ma ko tuddee man mooy bayre plus da ngay siiw ba noppi di mos dara mhm. ndax nit man naa siiw ba noppi ñëpp mhm. xam ko fu mu jaar ñëpp xam ne diw mooy moo ngi nee di ñëw mhm. fu muy dem day ñaan paas nit mën naa siiw ba fu muy dem day ñaan paas nit itam mën naa siiw siiw goo xam ne lépp lu as gor di am su gor ndox koy may est que kon ñun bayre bi nga xam ne moom la ñuy defal dañ lay coow ngay am ubbeeku am succès ba noppi sa wërsëg day yokk allah akbar mbooloo moo mën a ne ñoo mën a xëccoon yaa ci ëpp tuur te yaa ci ëpp wërsëg itam mhm. te da lay may sens bari bu ànd ak wërsëg daal la waaw kay lépp lu ñu xëccoo mhm. sunu borom ci sa loxo la koy teg allahu akbar dañ cee liggéey ñaar mhm. dañ ciy liggéey ndomba di ci liggéey jaaro di ci liggéey itam càngat waaw dañ ciy liggéey ndomba ndomba dañ ciy liggéey ndomba ndomba goo xam ne ñun ñoo koy liggéey juróom-ñaari gaw lay am juróom-ñaari gaw juróom-ñaari gaw lay am sur commande nag lañ koy liggéey ndax liggéey bi dafa metti waaw sur commande sur commande rek da ngay commande rek bokk na ci mbind yi ñett suuf yi lay àndal. waaw mooy suufu si jumaa te suufu si jumaa ji bu ajjuma lañ ci wut ndax ajjuma la mbooloo di daje ci jumaa. Hmm. ak suufu si marché. suufu marché ak suufu si xorondom. suufu xorondom. ñett sang lañ ñett suuf yëpp la ñu boole. allahu akbar dajaloo ñu sol ko ci biir ndoom mi ak la muy àndal. ci zuyina linnaas zuyina lladina kafaru Hmm? ak waasim fi nnaasi bil xajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamiri yatiina min kulli fajjin xamiim allahu akbar loolu mënoo takk laa wax génn te du la bëgg ba dal sa kaw allahu akbar seex bi wax nga ñu yéeme ci ndombo bi de man ngay wax laax ba nit ñëw rek gis naa ndombo bu ñuul ak ndombo bu ne bi nga wax nii te lii du du borom xel mu neex maanaam alquran la waxuma la loolu zulmaan yi déedéet allah nuuraan yi laa la wax leer nuuraan yi ku la gis du am ci yow kenn boo ko boo doon takk tey sa biir kër nga koy tàmbalee say doom du ñu am accès ci yow say doom ku la gis du am sago say jabar duñu am sago sa ndey du am sago kenn du am sago ci kër gi laa ñëpp lay bëgg laa wax. moom ndomba bi moom ndomba gi. foo dugg ci mbooloo. foo dugg laa wax lu mbooloo bari bari boo ñuy. yow rek ñuy wax ñëpp xool la. lu ñuy def te yore la ñuy wax. ñëpp laa la wax ndomba no bañ naa ko ba ñi ma koy liggéey sax dama koy xoolaat comme ku ciy liggéeyal. waaw dama dama lay wax lu leer nañ dama naan la bu dee góor nga jigéen ñi dañ nañ la topp ba mar di taali boo mënut a sàmm sa bopp bàyyi fi ndomba. allahu akbar laa ilaha ndax ku ko takk jigéen ñi danañ topp bu dee jigéen nga góor ñi jigéen ñi danañ la topp ba nga yéemu ci àdduna te damay wax ne célibataire bu ko takk te bëggoo sëy booy ba nga takk bu ko takk ndax boo ko takkee góor ñi danañ la sam ni ñuy samee mango allahu akbar am na solo ci ndomo bi vraiment dégg ngeen numéro bàyyi noonu ci daw bi képp koo xam ne solo nga ko rek nga woote ci rawata yéen ñi nekk Europe mais damay déggaat Europe ba léegi que tey suñu mbokk suñu frères suñu jigéen ñi dañoo nekk Europe mais tey ay jafe-jafe yoo xam ne tey dañuy nekk Europe am fa dix ans cinq ans mhm. mais dañoo am euh, problème bi nga xam ne moo di euh, ñaan mhm. tey ki nga xam ne tey mënul jot mhm. euh, ndombo bi wala waxuma ndombo bi ki nga xam ne tey mënul jot ay saafara yoo xam ne GP la est-ce que da ngay ñaan loo xam ne kurus la direct bal mu tàkk direct waaw bu dee bu dee ci wàllu GP yi moom ni ci baaxoo ñaanee mooy képp koo xam ne da nga am wàllu kayit kayit yi moo xam bu dee ñu nekk Amérique la Euh, lii may wax yëpp ci sama waajur laa ko miinee. ndax ñooñu ñoo daan woote. waaw moo xam nationalité la. Mm-hmm. wala green card la. Mm-hmm. wala ña nga xam ne sax dañ daan liggéey ci état bi te soxla woon passeport diplomate mu tëleen. allah akbar yii yëpp ma la wax. képp kuñ ci ñaanal ci riyaada. Mm-hmm. damay faral di wax ne mën naa ko sañ wax damay wax ne rab ak ñaanal nit ci wàllu kayit loolu sama loxo ca kaw wàllu rab. wàllu rab ak ñaanal nit ci wàllu kayit waaw. ku ma ci ñaanal lu yées ñeent fukki fan gisoo li ma la wax. Uh-huh. ñëwal ma delloo la sa xaalis. chef bi yow ah, wax nga de. samay responsabilité laa jël. koo ci ñaanal ci wàllum këyit. ku ma ñaanal ci wàllum këyit. Europe xam nga dañoo am problème këyit. barke Cheikh Ibrahima Fall dama ne. lu ma doon ba noppi jar bu ko gëstu ko jar bu mooy nga testé ko ba xam lu leer nañ Cheikh bi bu nekk jaar na fi. ma borom course bu nekk jaar na fi looy wax day leer. barke maam Cheikh wàllum këyit. xam nga ñun waa Kër Cheikh Fall dëgg la. ñun koo dégg ci askanu njara mu ne la daa ragal du mu njara waaw sunu sunu dëkk noonu sunu dëkk maam képp ku mas a tàkk buur boo duggee ci dëkk ba bis boobu lañ lay folli kon ñun dañoo ñoo mas a ragal dama ne lii ma la wax laa wax mooy li ne dama ne képp koo xam ne këyit laa la wax wàllu këyit la moo xam dangay demande visa te tëw a am waaw wala nga nekk bitim réew bëgg ñibbi si mu të waaw wala ngay lijjanti ay këyit mu të <coughs> jurum rab sama responsabilité laa jël képp ku ma ci ñaanal quarante jours gisoo résultat ñëwal sama kër ma delloo la sa xaalis nit day jël ay responsabilité waaw loolu de lépp. 1 plus 1 mënut a joxe lu dul 2. 2 rek. 1 plus 1. Cheikh yaa dégg lu dul 2 barke Cheikh Fall moo tax bu dee yii moom ma lay wax. kurus lañ ciy ñaanee. kurus. benn jotaay lañ ci toog liggéey ci liñ ciy liggéey génn dem defe ci sarax bi jeex na kenn kenn kayit dëgg la comme kurus nga ciy ñaanee maanaam kooku dalay jox turam ak sa turu lan wala nangam nu muy demee. maanaam bal buy tàkkale direct ak. mënut a ñàkk xoolal suñu borom amul loo ko jox mu sangoo. suñu borom dafa am réalité bu mu bind ci doomu aadama ak ndeyam donc nit ki bu juddoo benn ngir mu am élévation bi mu bëgg màgg bi mu bëgg ci ndeyam lay nampe ci weenam nit ki boo ko bëggee liggéey ñaari soxla woo turu baayam ñaari tur yi rek nga soxla mooy turu ndeyam ak turu baayam loolu ci la ñuy def nopp goo xam ne bu ñu ko defaloon nit bu at kenn mënut a séparer ñaari diggante kon wa ah? gis nga nopp gi ciy liggéey laa wax. Mhm. ñaari nit nga boole seen tur ak nga boole leen jàpp liggéey leen maanaam mooy sëy yi ngay faral di dig nga xam ne diw bu fi jëkkëram bàyyi ko mu a du ma am beneen jëkkër. waaw nopp bu gën a fort amul. nopp dina ñëw ci nopp sax ah? moo tax lii ma la wax ci wàllu kayit moo ci am képp koo xam ne da ngay déposé wàllu kayit ak ku mën a doon ci àdduna mm-hmm. ñaan giñ ci def benn jataay lañ ci toog liggéey kurus gi mu jeex takk ñu génn def sarax bi bu dee saraxu benn gàtt la ñu def saraxu benn gàtt bu dee sarax bi dugub la wala suuna lañ ko war a génnee wala ci pepp lañ ko war a génnee wala ci yére lañ ko war a génnee <coughs> wala lu mën a doon barke maam Cheikh buñ ko génnee nga génn koo mën a doon bu dee ci wàllu kaso nga noonu laa ko tuddee ñoom ñëpp xam nañ ko ñu nekk ci biti bi ñëpp laa ko yor mm-hmm. ñaan gi ni mu tudd mooy buy génn ngay génn. buy génn ngay génn. su ma tëjoo ca ma def li may def génn génnee sarax bi faaw nga génn. faaw nga génn mënut a ñàkk ak noo mën a génne. am na ci boo xam ne itam ci sunu maam lañ ko doonoo mooy ñam woo xam ne du reese ci biir kaso kuñ mën a tëj ci kaso wala nga nekk ci problème bu ñu la joxee ñam bi du fa reese. allahu akbar maanaam doo fa tuuree ndox doo fa demee wana. Hmm. ak lu mën a xew ala kulli xaalis da ngay génn. Euh, sëñ bi am na solo waxtaan bi euh, mais li may jëluwaat muy nopp gi am na ñoo xam ne dañuy am seen borom kër mais li ñu problème mooy dañuy nekk seen borom kër mhm. mais li ñu war a am jot seen borom kër seen borom kër doon ko defal mhm. pour seen xool gën a nekk mhm. te wàllum nopp dafa bëri ñu koy wax te mënuñu ko bitim réew dañ ma ci joytu dama nopp damay nekk sama borom kër mu yor alal jurul jeex mais mënuma ci jox cent franc daf koy joxe ci àll bi wàllum nopp parce que tey soxna yi soxla nañ ko trop na Europe wàllum nopp laa bëgg waaw nopp moom damay wax ne boole ñaari nit ba mënatuñoo tàggoo ci àdduna képp ku gëstu kuy askanu njare waxuma mën nga xam ma waaye nga gëstu askanu njare xam kuy sunu bàyyi noonu xam nga ne nopp ci àdduna mus musuñu ko musuñu ci yem ku yàlla bind ci àdduna mm. maanaam nit ki bu dee daane ci bitim réew wala mu nekk ak moom fii ci Sénégal wala fa gën a sonn ci àdduna mm-hmm. yàlla may ko mu yor xéewal ci wàllu wërsëgam lànk kandaare bañ ko cee dimbali wala mu bañ ko cee taxaw mm-hmm. wallahi buñ jëlee turu ku jigéen ki ak turu ndey ku góor ki ak seen turu ndey ñu boole leen ñoom ñaar bu buñ ci liggéeyee li ñuy liggéey dagg ko xaati musallas mhm. fañ koy dugal ak nañ koy defee nag du ci leeral dara waaw code la ndax sàcc yi daa bari léegi mhm. ndax da danaa ñëwaat ci courtier yi nga xam ne daa nekk mënuñu dara mhm. dañuy ñëw di jëm ci sëriñ si di la jox ay turi jàmm nga di ko def ñu wëlbitiku mel na ay sëriñ ne te duñu ay sëriñ dama ne awma jot googu man ca tool ya laa ne yor daare alxuraan di jàngale boo ma jugee fii ca tool boo ma woowee jotoo ma mënoo maa jot message rek message rek nga ma mën a jot boo jugee Dakar ji boo jugee rendez-vous itam moo may indi saw bu ma fi ñëw bu ma noppee damay delluwaat aw ma yitte dama ne képp koo xam ne laa wax nopp nga soxla ci sa soxna moo xam ko takk la moo xam ko takk gut ño nopp bi mënut a wees juróom-ñaari fan man loolu laa sept jours sept jours ko wees loolu yàggul de am na ci nag lu ñuy wax fay coow mooy jigéen joo xam ne dafa joteeg borom kër ñu nekk ci ay jafe-jafe xam ne ci naqar lañ ñu am na ku ma ko tem sax ñu tas am na ku ma ci wax keroog mu paree sax naa ko numéro bi naa ko jox jeex na seen ñaari tur rek ngay boole def ca la ngay def taal taal ba muy yàññi nga jël ko fay ko ci jeex na coow loolu bis nga koy noppee dégg jeex na dootoo ko déggati ba saa di na ci yoo xam ne itam munoo koo def ci aw ñam moo xam ku jigéen ki la wala ku góor ki ñu maasandoo lekkandoo ci kenn di bàyyi moromam munta ne mënta ne ci àdduna. kenn kenn du mën fase kenn laa wax. allahu akbar cheikh bi euh, li wax am na solo mais ñëw ci sunguf yi sunguf yi lan moo waral sunguf bu nekk laa bëgg nga yëkkati ko. wax ma benn bu nekk li muy faj. parce que ku nekk xam ne suñuy maam ay sunguf lañ doon def. mais tey nga gis sunguf yi nekk laa fi gis tey. bu dee bu dee ci wàllu sunguf yi tam. laal ma benn bu nekk nga won ma. parce que waroon ma ko mais àdduna nga koy won. kenn lu ma ko. wér na bu dee mhm. ci xam nga sunguf balaa ma cee dugg si. Mhm. xam nga sunguf da ci am ñoo xam ne ci wàllu alxuraan bu ñëwee ci ñun. Mhm. ndax yii la sunu maam daan yëngu. Mhm. ci wàllu sunguf. Mhm. boole ko itam daan jàngale ci alxuraan mii noonu lool mbirum lasraar. waaye lii day meññante moo xam ne ci garab la bàyyi ko. ci garab. gaaw lool ci jàpp doomu aadama itam. ci fas ci fas yii nga xam ne moom la ñuy wax waa waaw fas gu weex gi. waaw ci ñetti fas yi nga xam ne moom la ñuy wax fas gu weex ak gu ñuul ak gu xonq. nga xam ne mag ñi dañ koo mànda garawoon mooy deru doomu aadama ak yaxu doomu aadama ak deretu doomu aadama allah deesu ci jàpp nit ci waxtu ñetti waxtu fekk muy nelaw te du yeewu te li nga def doo ko gis hmm? mun te ne koo ci fas dam koy jàpp ak ku mën a doon nag ak daraja ju ko mën a yàlla mën a dénk bu dee borom daraja di borom maqaama ci àdduna ñetti fan faw nga jàpp mooy ñetti fas fas mun te ñàkk hmm. ci noob ak ci fan yëpp mu mën a doon hmm. léegi nag moo ñëw ci wàllu sunguf yi xam nga sunguf dinaa ci leeral dara maanaam li tax yàlla boole ñoo garab mooy meññant yi nga xam ne moom la ñuy lekk sax ci garab la bàyyi ko mm-hmm. fruits yi yeeg lu mu ci mën a doon nga xam ne vitamines yañ cay soxla loolu la ñuy jëfandikoo ci suñu biir yaram mm-hmm. yii nag dafa doon xas yoo xam ne dafa am ci jëmm yi ñoo xam ne maanaam set gi nga xam ne dafa wer ci booy ñaanal alquran yow mi koy ñaanal da war a set ki ngay ñaanal set mm-hmm. ci bëri ci doomu aadama yi nag ñoo xam ne set gi ñu war a yelloo ci seen biir dafa des ah, cet gi cet gi waaw da ci am ñoo xam ne sunguf rek moo gaaw ci ñoom am na ci sunguf si nga xam ne moom laa yor sama loxo bëri wélingal bëri wélingal ànd ak tobbam benn bu ci ne juróom-ñaari garab la ànd ak seeni tobb lii laa la wax doo ko doo ko jël def ko ci ndoxum lekkat te jii sotti ci xorom yëngal ko ba fuur sangoo ko te bis boobu doo ñam dara munta ne foog nga ñam par force la foog nga xewlu par force allahu akbar par force la bis boobu faaw nga noo mën def for dara faaw nga am xewal laa sëñ bi loolu xëccoon mbir loolu di nga compale waaw faaw nga ñam dara munta ñàkk sunguf si nga xam ne moom na ñuy wax sungufu sump yi moom suñu mbokk pëlee ko xam sump waaw li maa ko xam may kaw kaw kaw kaw waa ko xam dara tax koo jug lu lu dul bayre ma dëkk Saam Fall dëkk suñu Cheikh Fall baay góor jeex na moo xam naa ko dara tax koo jóg lu dul bayre mhm. bu fekkee da nga am xas bi am reen mi mhm. boo amee xas mi mhm. na lu muy àndal nag loolu du ma ko leeral waaw waaye ci suuf la boo leen boolee boo ko yëngalee ba mu fuur boo ko sangoyee boye boobu booy génn moom na nga ne ci jàmm ndax coow dana la topp ah! bayre nga yam ba mu yëm nit yii nag dafa gën a gaaw gën a efficace. waaw moo xam. ah dafa gën a gaaw sunguf yi gën a gaaw moom junni junni la. Ah. junni dafa am ñoo xam ne boo leen dee ñaanal léegi léegi junni junni sunguf nga leen jox léegi léegi junni junni ñu gis def. daf léegi léegi. ñi nga xam dañ la man bu dee sangu yi may sangu ay dix jours sept jours dafa yàgg ci man dama naan sama sanga benn fan nga gis résultat boo gisul ñëwal ma jox la sa xaalis. est-ce benn fan nga gis résultat gën ngaa bari ku mën a doon ñetti fan mhm. faw nga gis résultat mënut a ñàkk ah, su ko mhm. ndax dafa jege doomu aadama mhm. moo yi ngay lekk tey tam bàyyi ko ci garab boo ko lekkee rek automatiquement ferñeent yi day dem sa biir yaram vitamines yi vitamine C ak A nañ koy yëpp day gi nag noonu la amee amee ci biir doomu aadama loo xam ne bu dee wërsëg la bu ko nit ki sangoyee lam composant ba mu war a àndal boole ko moom faw day gis résultat bi mënut a ñàkk ala kulli nga xam ne nag euh, togg benteñi la. waaw ñi nga xam ne ay commerçant lañ te nga xam ne dañoo nekk ci ay bërëb di jaay. Mm-hmm. seen bëgg fa mbooloo. wala place ba daan wala mu am yàqute am na mm-hmm. cuuraay bu ñu ko booleel mu ngi ci biir daare mm-hmm. boo xëyee taal ko ci place mbooloo dana ñëw ba dikkal la ba mu yëm la. moom cuuraay boobu moom cuuraay mënut a ñàkk par force la. place boo ko taal mbooloo dina ko dëkk ba mu jaaxal. bu fekkee ne nag yow fa ngay fa ngay liggéey kon loolu commerçant yi moom ñoo ko tax a jóg allahu akbar sungufu commerçant yi la sungufu commerçant cuuraayu commerçant yi la ko képp waaw ak la ki nga xam ne nag dafa bëgg fa muy dem ci biir mbooloo mu bëgg fa am ubbeeku ci biir këram lay taalee cuuraay gi am na cuuraay bi muy àndal ñu koy wax bili cuuraay libaan hmm. libaan zakkar bi ngay wax hmm. ñoom ñaar ngay boole boo ci taalee taal libaan zakkar mu dugg ci sa yaram hmm. boo xëyee di wuti ji lépp luy wuti ci àdduna sunu borom dan la ko jàpp insha allahu taala waaw lii nag lu fi mag ñi bàyyi la ñu donn ko ci suñu maam mhm. waaye yemuñu ci gëstu rek wàllum sunguf mhm. waaye suñu maam dañuy jëfandikoo sunguf di jëfandikoo lasraar ñu boolee ñaar yépp nag looy gën a dem ci jamono nag ngay gën a xam doomu aadama yi ndax bu njëkkoon li tax nit boo ko ñaanalee mu gis résultat bi mooy yow miy ñaan da ngay sell ki ngay ñaanal sell li ngay ñaan daa sell moom it mhm. kon boo ñaanee automatiquement day day résultat dem léegi nag sell tegi da ngay gis koo xam da nga koy ñaanal joo xam dafa war am soxna te amugu ko muy alxuraan pour mu ñëw fekk loola man koo jàpp du yomb wala muy ji góor goo xam ne moomut boppam day dem di ànd ak yeneen i soxna mhm. te bëgg naa am wërsëg sunguf nag xàmmewut kii mooy xàmmewut ku moyut xàmmewut ku nekk ci njub xàmmewut ku nekkul ci njub ni ngay lekkee pom léegi mu dugg ci sa yaram amal la njëriñ noonu ngay sangoo sunguf léegi du génn mu amal la njëriñ wallaahi moo tax def sunu mbokk pël yi mhm. ba ci sunu mbokk séeréer si séeréer saafoon sek séeréer sëpp moom la ñuy jëfandikoo mhm. ba ñu may wax ak yow xam-xamu rab la itam te moo gën a gaaw gën a efficace ñaari yëpp rek dañ ciy liggéey ci alxuraan ci xaati musallas mhm. ak ñaan ci kurus ak ñaan wàllu sungu macha allah am na solo cheikh bi fi ñuy daaneel rek eh, waxtu waa ñuy xoj mais eh, wàllu rab parce que mhm. rab gis nañ ne mhm. rab sonal na eh, réew mi mooy xam bitim réew nga nekk dalay yàq ba yàq sa liggéey ba tàggal sa sago souvent te lépp rab lay doon ba booy sëy sa soxna sax souvent doo am bànneex lépp rab la wàllum rab maanaam waaw wàllum rab moom li ma ciy wax rek dama ne rab moom képp ku mas a ñëw askanu njere ñu takkal wala fenn ci biir kër Cheikh Rafal kenn musu faa ñëw ñu takk la te booy dellu duñu la teg nga ànd ak say mbokk rab tam assurance laa ci joxe sama jëmm dama ne. képp yaa ngi joxe ay assurance rek. li ma wax dafa leer dama ne. yaa ngi joxe assurance rek li ma ci bëgg sax dama ne. képp koo xam ne danga ngaa amee rab. Mhm. ñetti rab yi moo ci am. ki nga xam ne rabu coro rab la am wala faru rab. Mhm. ak ki nga xam ne rabu ceddo la am. ak mhm. ki nga xam ne rabu tuur la am. dinaa la ko misaal leeral la ko ba nga xamee ko. ki nga ah, xam ne rab bokkul ci nga mhm. xam ne rabu tuur la am rabu famille la mhm. mooy rab yi nga xam ne dañ koy samp mhm. benn lébu yi lébu yi ñoo am wala séeréer wala suñu mbokku pël yi rab yooyu nag boo ko amee ci sa famille nday goo koy jëlee wala ci sa famille baay ñaareelu rab bii ma lay rabu ceddo rabu ceddo da lay xiir ci mooy yàlla mooy gone yi nga xam ne ñu ëpp ci ndaw ñi buñ lay woo la jàmbat wàllu mballoog di fooye seen bopp nga xam ne rab yooyu moo leen di leen di fooloo ci lu neexul na leen di ci ñuy tux ba dañuy tux lu gën a loo xam ne mu gën a bon ci li ñuy dañ koy tux te ci am sax lépp rab la am na ñoom da di naan loo sàngara bañ mën nañoo nekkoon ku am alal waaye sàngara moom mooy yàq seen lépp. mais loolu am nga ci saafara après. ok mhm. moom damay leeral catégorie. waaw bii mujj nag mooy cororab ak farorab. cororab bu dee ku góor la ñu ne kooku dafa bu dee ku jigéen la ñu ne dafa am farorab bu dee ku góor ñu ne am cororab yooyu li muy am mooy plaisir lay dund ci yow ñaareel bi ak di la fiire. bu doon mhm. da ngay sëy mu yàq sa sëy boo dee danga ngaa bëgg am soxna mu fexe ba doo am soxna di yàq sa wërsëg ngay am tëjut di am yaakaar ji tas yii nag ma la wax képp koo xam fii ci réew mi ba ci bitim réew faj nañ la nga yëkkati sa xaalis jox ñu te gisoo résultat ñëwal ma delloowaat la sa xaalis. waaw loolu de assuré la moom. sama kër laa wax te képp ku may faj rab te nga nekk Sénégal bëgguma laa yóbbante yóbbante yi dinaa koy def waaye li ma gënal mooy nga ñëw toog sama kër ñu jàkkaarloo maa wax la li ma lay wax jox la samay garab boo gisul samay résultat ñëwaatal sama kër ma delloowaat sa xaalis. waaw fii de loolu wax day leer. ndax sama biir askanu maam laa wax kenn mësuñu faa takk nit indi ko fa te wuñ ko yóbbuwaat ko seen kër nit musta am rab laa la wax dugg biir palen dugg ànd ak rabam dugg ci biir kër gi musta am barke Cheikh Fall Seydina Alioune Fall Mbawar daa wax ne képp ku am ay rab bàyyi leen mu ko ci biir kër gi maa ko xam bu ñu yenee ndogu yi bay dem bu ko saxaara si ndogu Seydina Alioune Fall Mbawar maa ko xam noonu la mhm. nga yor rab mu ne nañ ko dugal ci biir kër gi na ànd ak mbooloo mi di bale bu balee ba noppi rab bi ko mu ne ànd leen ak dem ñibbi foofu lañ bokk moo tax damay jël assurance ci wàllum rab képp koo xam ne nu la mën a daanelee nag ñi nga xam ne day yàq seen wér-gu-yaram ñi tawat loolee leen def yaram bu diis wala seen yaram ñu am ay membre ñu ci feebar mm-hmm. ñii nag mm-hmm. ko ñaar yëpp bu mu ci mën a doon ak yàqal ko fu mu a yegg barkeb Cheikh Ibrahima Fall boo ñëwee ma faj la nga ne gisoo résultat ma delloowaat la sa xaalis assurance la sëñ bi am na solo macha allah mu ñuy dab mm-hmm. euh, moo di béjjén la ñuy tëjee rek ñaari béjjén yi ma gis bu lan la jëriñ waaw bu dee béjjén yi nag sunu maam moo ko daan liggéey. yëkkatil ma xool. ñaari béjjén yi. Mm-hmm. bu dee bi yi ngay gis moom la ñuy wax béjjénu bëy. bëy wu góor bëy yu góor xam nga bëy dafa bëri coow. waaw te ñaareel ba alalu jinne la. wax nañ ne ci yontu yàlla Souleymane alayhi salaam jinne yi moom lañ indiloon yontu yàlla alayhi yontu yàlla Souleymane alayhi salaam ba ci yontu yàlla Souleymane ñaanee nag moo tax rab boobu mun a dem moo tax mu des moo tax di def bokk ak mala yi sax ni ñu dundee mënoon ngaa tabax sa étage léegi bëy man-man yi ba yëg ci kaw étage man ngaa taxawal miir bu rëy bay man ma ne ba jéggi ba jéggi miir bi ndax jikkoy jinne la yor te lu bërëb xat-xat xaj na fa te itam dafa am jukkoy boppam lii liñ ciy liggéey mooy bayre mbooloo moo ko tax a jóg place bu mu ne wala bërëb bu mu ne faaw day am bayre mun te ñakk day am bayre te day yëkkati ko itam béjjën bi mun te ñakk bu dee nag da ngaa nekk kii mbooloo moo xam ne nag dañ laa ëpp succès masalan ngay commerçant boo xam ne ña nga nekkal ci bërëb yi ñoom dañ laa ëpp succès boo ko takkee sa digg place wallahi wa rabbul kaxba dootuñu la yóbbulati lu toll tarfatala yaa indi kawe fuñ mën a ne laa fa la ñuy dégg yow ak sa a da ngay ànd ak njarte am na solo bu dee yii nag ñoo ngi koy liggéey ci béjjinu xaru tabaski bi moom xanaa moom président ngay nekk wala ministre wala nangam bu mag bi la de <laughs> béjjinu xaru tabaski la moon ah béjjinu xaru tabaski xaru samp dëgg dëgg ci lañ koy liggéey samp dëgg waaw moo tax man la président wala ministre dëgg ci lañ koy liggéey allah boo xoolee xaru tabaski ni nga xamee ne sunna sunna suñ dëgëral la uh-huh. ba mu dagan ci bépp jullit mu koo def nga xam ne lii moo wuutu woon bakkanu doomu aadama nga xam ne suñu maam Souleymane wala boog euh, suñu maam Ibrahim mhm. alayhi salaam doomam ji lii la ko wuutu woon mooy xaru tabaski mhm. baatin boobu nag moo nekk ci bii maanaam foo mën a ne ba jën bii feeg yaa ngi ànd ak moom wala nga nekk ci di ko fa def wa rabbul kaaba askan a bokk yaa leen di dimbal allahu akbar moo xam ca place nga ko def moo xam sa bureau nga ko def moo xam sa oto nga ko def moo xam da ko def sa coffre-fort a ngay ànd ak moom moom samp la sampal ku mu mën a ne da nga yëkkati ko. Mhm. wa rafa'naahu makaanan aliyyan. mbooloo mhm. moo mën a ne da nga yëkkati ca ngay ne. Mhm. kenn mun ci dara kenn mun laa delloo ginnaaw itam. te wërsëg woo bëgg suñu borom dana la ko ñoddil. te looy xëccoo yàlla dana la ci jot. macha allah am na solo Cheikh bi fi ñu tëjee rek mooy yaakaar bu tas souvent da ngay gis xam ne lu mu yaakaar mu tas day def benn projet ba ci cëppaandaw ga mu tas lan mooy yaakaar bu tas lan moo koy faagal moo ko dindi waaw yaakaar ju tas moom dafa bari lool ci ndaw ñi rawatina ci génération bi nga xam ne ñuy dund ñu bari dañ la ko jàmbat ñaari melo rek laa ci leeral ci lu koy faral de mm. yaakaar ju tas bari na ci ñoo xam ne ñi ko amee ñi ci ëpp cat moo leen koy def cat moo leen koy def catal lam la réew semal la waaw catal lam wala catul bët mm-hmm. cat nag boo ko amee mooy waral mbir mën nañ la koo dikk ba nga yaakaar ko ba dem ba jësul du nga war koo jëriñoo nga dem ñu ne la loolu daa mujj daa mujj daa mm-hmm. mujj yàqu Mhm. wala nga joxanteeg nit rendez-vous sax dem mhm. ba desul lu ngeen gisee mhm. mu ne la rendez dama ko mujj foofu nga xam ne yow mënu ngeen dara lu am loo xam ne nag ñun moom yu mel noonu damay wax ne boo ñëwee ca daara ja sax gone yi ndaw yi boo ñëwee ñu defaral la ko waaw luy faj yaakaar ju tas danaa am sax yu ma ci maye loo xam ne képp koo xam ne sa yaakaar ju tas dalaa sonal ndax dafa am ñaar bii ma wax ci cat na ci boo ne rab a koy def nit nit boo xam ne mooy défendre ay mbiram lu ñëw day def défensif ci kanamam ba loolu jot léegi nag ñaar yi boo ci mën a am incha allahu taala ñun benn càggat ci lañ koy dundee boo ñëwee mu dañ ci sa jëm mhm. am nañ ci galañ itam bu ñuy liggéey mhm. ci reen boo xam ne bu buñ doolee ci suñu maam la boo ko takkee ci sa ndigg mhm. yaakaar ju tas bis boobu ngay tàggoo moom lii nag lu may mayee la képp ku ko def te amee yaakaar ju tas dana daj mooy da ngay bàyyi ba bisub dimanche yoor yoorub dimanche ñi xamul ci waxinu nasaraan yoor yoor mooy boori onze heures douze heures diggante boobu nga dem ba ci géej nga sànni fa guro gu weex ak guro gu xonq nga tànk ndox lu toll ci cinq litres lu la mën a sàng ba jéggi ko Mhm. boo ñëwee nga tàngal ko ba mu tàng jërë ba mu bax mhm. nga sànn ci juróom-ñaari xay mooy takk xay yi nga sànn ci juróom-ñaar mhm. bàyyi ko ba mu sedd nga sàngoo ko benn jotaay jeex na xay yi nga sànni ko bis booba lépp luy lijjën ci weer woowu yàlla dana la ko jàppal insha allahu taala macha allah am na solo vraiment tey euh, dégg naa xam-xam dégg naa li nga xam ne moo di macha allah wax bu leer parce que euh, nit ki rek looy jëflante ak doomu aadama rek dafa war leer waaye di fàttiwaat rek numéro baa ngi daw ci barre d'écran bi euh, képp ku ko soxla rek foo mën di nekk moo xam nga nekk Europe moo xam Asie nga nekk soo wootee ci numéro bi am na li nga xam ne moo di euh, whatsapp nga wax sa soxla wax sa jafe-jafe mm-hmm. bépp jafe-jafe boo am rek incha allah te yàlla suñu borom di ko saafara mm-hmm. da koy jaarale ci moom macha allah muy euh, ko mm-hmm. koo xamee nag euh, kilifa la kilifa nag du mag du dara waaye kilifa ci bopp lay doon kilifa xam-xam la ku nekk xam ne ëtt ba mu jógee muy ëtt suñu Cheikh Fall Mbawor Mbawor Fall ku nekk xam na ne xam-xam fa la samp baax vraiment kon di wax rek ñu ngi noonu jotaay lañ amoon tag moom ak waxtaan muy suñu première waxtaan ak moom nag yaakaar naa numéro baa ngi doon ci bati bi képp koo xam ne solo nga ko rek bi looy tàggoo wala loo xam ne laaju ma la ko nga war koo sànni rek nga wax mhm. xanaa mhm. yàlla bu baax santaat yàlla bu baax wàllum sëy waaw waaw yàlla bu baax bu baax a wàllum seet waaw seet bi dama ko fàtte waaw wàllum seet ku bëgg a seetlu aussi tam mu ngi noonu seet bi nu muy demee waaw bu dee seet moom mhm. seet moom damay wax ne ñetti xeetu seet yëpp dañ ciy seet dañuy seet ci ndox dañuy seet ci sa loxo dañuy seet tam ci kurus képp koo xam ne da nekk en distance dañuy seet seeti ñu nag lenn la mooy sa tur ngay wax ak foto sa loxo nday jor yónni sa tur photo sa loxo jor képp ñaareel ba ngay leeral dara ndax seet moom képp koo dégg mu ne dalay seetal ba noppi di la looy liggéey wala foo ah. seet ba rax na seet moom sa tur ak sa photo sa loxo jërul leeral sa tur sa photo photo sa loxo nday nii waaw ah, Cheikh bi li nga wax yéeme na de sa loxo nday jor nii photo nga ne nga photo sa loxo nii yónnee ñu sa loxo droite. Mhm. boo noppee itam nga wax sa tur. Mhm. jeex na jarul leeral dara. lépp lu ne ci yow ba nga li weesu ci sa kanam ak li ngay dund ak li ci sa kanam itam ak sarax bi nga war a def ak ban bis nga koy def ak waxtu wi nga war a def sa sarax ngir sa mbir dox ngir sa aajo di mën di sotti ci katt nu yàlla ñu wax la ko. Mhm. ak koo mën a doon nag. koo mën doon. bu dee seet ci ndox wala ñuy seet sa loxo sa loxo la ñuy téye nii nga toog bu dee ku ku ñëw ci suñu kër wala ñu mel noonu. benn jataay mën nañ laa seetal. dañuy seet itam ci alal joo xam ne dafa réer wala matériel boo xam ne dafa réer wala mbir moo xam ne da nga koy lijjanti mu të. Mhm. xaaja joo gis rek day am sarax bu méngoo. mooy lépp. mais daal waaw bu doon da nga am marchandise boo xam ne dafa nekkoon port. wala mhm. da doon lijjanti dara. wala terrain mooy xëccoo wala mbir mooy xëccoo tëccee jot. boo ñu ko waxee bañ xool ko dana am sarax boo xam ne mooy saraxam. mooy saraxam bu ko waxee rek. boo koy def loolu na nga ci macha allah seex bi xam naa waxtu muy xaj li nga xam ne waxtu bi amoon nañ ko mais am nga wax bu am solo boo wax tànk mm-hmm. muy wàllum looy xëccoo wala suuf ki nga xam ne day jaay suuf nag euh, mm-hmm. moo xam terrain la wala kër mm-hmm. bëgg mu gaaw waaw bu dee wàllu njaay moom njarte yow moom damay wax ne noonu sunu waajur nam ko daan baaxoo di waxee lay wax rek ñaari njaay yi moo benn bi boo ñëwee bi ci digg kër bi am na baat yoo xam ne boo ko waxee balaa bis ba déet lu mu mën a doon day jaar muy kër gi ngay jaay wala terrain lu mën doon am na ci yoo xam tam bu ñu la ko joxee bërëb ba nga xam ne moom ngay jaay moo xam oto la moo xam terrain la sama maam da daan wax ne boo ko dugalee ci bërëb ba balaa poussière loola dana jar loola daan wax mag ne ko ah bu dee daa tombé ngelaw nag mu ne xaw ma lu ma doon waaye balaa poussière dana jar secret yooyu nag juggi fi mu ngi fi mhm. képp koo xam ne da am terrain wala nga am place wala nga am marchandise mooy jaay mhm. wala sax euh, oto booy jaay wala lu mhm. xeetoog moom nga xam ne da koy jaay tam tëë jar barke maam Cheikh bu ñu la joxee lii nga def ko ci biir bërëb ba bis yu néew loolu dana jar ak ku mën a doon mhm. maa ngi sant sama sama bàyyi si ñoom di bi nga xam ne fii bu yàggut am na terrain bu ñu ko doon jaayloo ay centaine de milliards lañ ko ko doon jaayloo mhm. Mhm. ay centaine de hectares benn jataay la toog liggéey la muy liggéey ci dog boobu balaa bis bee dër si terrain boobu jar na loolu moom lu ñu doon la wàllu course moom loolu ñu ciy ñaanee amul ma dem te ñëw moo xam moo ka nga du samp ñooyam ki nga xam ne dafa yëg yàqut ci wàllu wërsëgam boo ñëwee benn jataay lañ lay sàng loolu daj waaw te li ñuy wax dafa am assurance boo demee gisoo ko ñëwaatul ci biir kër gi ñu delloo la si xaalis ndax yi mi maam la te dañ koo doon hmm. cangatu yàqule wala tëjute wala ñu sànni la korte wala nga am jafe-jafe surtout korte daa bëri léegi korte te korte maa ci révélé lu xaw a xoromam Cheikh bi yow chaque semaine ñu dem émission chaque semaine parce que yow li nga wax dafa am solo fi ne nii sax dinaa jox révélation bu rëy mooy fi ne nii soxna yi xam ne ñu ci biir réew mi ba ci borom ba ci a baax a a hmm? nañ prêter attention bu baax ci soxnay jàmbur yi ak jëkkëri jàmbur yi ku ci amul gàllaaj dana la sànni kot te kot boo dajewute ku ko mën a dindi lu weesu kër njara wala fu mu mën a doon sama kër maam laa xam mhm. ñaar kenn mënu laa tee fa sa yaram day new yi ngay am tànk yu metti bopp bi di metti ngay commencé di tàggoog sago doo diggati ngay ngay tàmbali di yëg sa yaram foo toog di ñàq koy xet ko kot nii lay manifesté fukki fan ak ñaar buñ la fa buñ la fajul da ngay faatu waaw illaahi fii ci kundu njara nag am na sangu gu ñuy wax sangatu kundu njara benn jataa ngay toog ñetti caqal boo taxawee sangu ci nga wér péng ak koo mën a doon. allahu akbar dañ ciy faj ci kort. macha am nañ ci gàllaaj xam te buñ la ko joxee koo a doon kenn mënu laa sànni kort ba mu jàpp. allahu akbar waaye nag nañ wattandiku di dem ci soxnay jàmbur yi. waaw noppi nag bëgg di kii yooyu wóorul. waaw wóorul ndax am na yoo xam ne boo ko raxasoo ànd ak sa soxna képp ku ànd teg sa soxna fa lay jaaree tële fa lay jàll yàqal. te loolu kenn mënu koo faj. allahu akbar sëñ bi am na solo xam naa waxtu mu ñu dab rek dañuy bàyyi ba beneen yoon yaakaar naa wax bi am na solo li nekk sa bopp tey mën a ko génn lépp ci émission mais euh, mu ngi noonu euh, xam naa dinañ def li nga xam ne moo di émission pour dimbale jaamu na Europe bi euh, sonn nañ soxla ay ñaan mm-hmm. te tey danga ñëw ne da fii fiy dindi li nga xam ne moo di mm-hmm. wax lu dëgg da li nga xam ne mooy naxaate bi mm-hmm. da nga fiy li nga xam ne mooy dóor parce que sëriñ yi na tey waaye da nga ñëw andi xam-xam da nga ñëw andi lu wér ak li nga xam ne moo di assurance sëñ bi lan ngay tàggoo waaw xanaa santaat yàlla bu baax di la sant mm. di la ñaanal yàlla yiw ak yokkute amiin ñu bokk di ñaanal ñi seetaan tam yàlla faj xaaje dàq njàqare yi amiin di ñaanal sama wólle Cheikh Amadou Murtada yi ak am di jàmm yëpp di ñaanal sunu donge yi ak sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci àll ba mm-hmm. ak ñi ñu féetal noonu foofu ca Touba Palin mm-hmm. ak yi nga xam ne ñoom la ñuy dalal fii ci Dakar mm-hmm. ñi ñu fi fekk ak ñi ñuy jëflanteel ci réew mi ak ci bitim réew di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di nuyu suñu kilifa ya foofee ca biir mbawar mm-hmm. di ñaanal ñëpp yiw ak tawfeex mm-hmm. wa axiru daawaana alhamdulillahi mm-hmm. rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw jërë ngeen jëf mbokk yi lañ amoon tey ci jotaay bi ak euh, kilifa gu tedd gi euh, macha allah kon numéro ba ngi ba bi rek képp koo xam ne soxla nga ko rek danga koy woo yow nga nekk bitim réew numéro bi am na li nga xam ne moo di whatsapp jafe-jafe boo mën di am nag euh, saafara bu am na ko incha allah ci kàttan yàlla mbokk yi kon jërë ngeen jëf. di daal sama waay la. camiñal jaara busut wala mañ se bi jaara